coordination départementale Rewmi day tenir ay assemblée générale décentralisée tey dañu doon tenir suñ assemblée générale décentralisée waande comme moo doon suñ première sorti officielle après les élections locales ñu defaale ko occasion pour ñëw Cilmaxa sargal le maire Cheikh Ibra Ndiaye ndax Cheikh Ibra mooy tey le seul maire du parti mi dans la région kon loolu tax ñu ñëwoon di ko sargal di sargal di remercier également population Thilmakha ci li ñu nu defal euh, bu loolu weesoo nag euh, waxtaan nañ ci yu bari ci situation réew mi gis nañ nag président Macky Sall ak gouvernement am ni ñuy taxawoo population ci moment difficile yi moment yi nga xam ni moment difficile lañ waa na ñuy gën a ñaax rek di ñaan ndax Kajoor kat laaj na taxawu nawet bi xawoon na fee sooxe kon population yi soxnañ ku leen gën a dimbali waande dañoo jubub nawet bëgg di soññ rek xam nañ ni nguur gi mi ngi ci waande di soññ ndax jiw wi mën a teel a egsi te buñ ca eggee tam engrais bi mën a doy euh, ci loolu itam nag euh, parti réew mi day wax nitam tam dafa bañ ku ko fàtte ndax bu paasee li nga xam ni Idrissa Seck ak Macky Sall dañu ànd ànd bu wér ba ñun ñu fal Macky Sall le deuxième ci fal bu rafet ci département Tivaouane ba ñëwee législative ñu jiitu parti réew mi jiite campagne législative ba am ngañaay bu rafet ngañaay boobu la ñu bëgg bu ñu ñëwee ren tam deux mille vingt deux noonee ñu defoon parti réew mi ànd ak reste coalition bi def campagne bu rafet am fi résultat yu mucc ayib. ñuy waxtam di ñaantam président Macky Sall ak Idrissa Seck di leen wax ni parti réew mi day ci organisation ak ni muy doxalee ci jàppale nguur gi war nañuy fàttaliku membres yi te ay cadres yu baree fi nekk ñu fàttaliku leen ci buñ dee joxe ay cër ci ci réew mi. Euh, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. honorables invités, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la commune de Tilmaha a eu l'honneur d'accueillir la coordination départementale de Réumi Tiwawan, conduite par son coordonnateur, M. Bassirou pour la tenue de la première assemblée générale après les élections municipales du 23 janvier 2002. Mais également pour nous rendre hommage suite à notre brillante victoire à l'issue de ces élections locales. Euh, je voudrais d'abord vous faire partager toute la joie que j'éprouve ce matin d'être entouré de tant de responsables, militants et sympathisants, dont certains sont, ont marqué l'histoire politique de la commune de Tchilmaha. Au nom de tous et de tous les responsables et les resp euh, sympathisants de mon parti réuni en particulier et de la coalition Benno Bokk Yakaar en général, je voudrais ensuite remercier la coordination départementale pour le soutien sans faille qu'elle nous a toujours apporté. Je salue donc tous les sympathisants et les amis qui, sans leur engagement et leur disponibilité, notre coalition n'aurait pas gagné ces élections. Aujourd'hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par nos collaborateurs au cours de mois, au cours de ces derniers mois, et qui ont consacré tout leur temps au service des populations. Cet investissement mérite notre considération et notre respect. je lance un appel à tout un chacun de se mobiliser comme un seul dans la main, derrière le président Macky Sall pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections législatives de juillet 2022.